lan mo waral 18 safar 18 safar tombeek 10 août 1895 di bés bi nga xamanteni ku tedd ki khadim rasul ci la jotté ndigalul suñu borom muy natt yi nga xamanteni moko yobbu gabon ngir mu dem liggéeyal suñu borom mbokk yi mag leen di siyaar laataa ñuy commencé nag téere bii nga xamante ni sama waajur mbay gay sill muy la véritable histoire de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon muy téere bu am solo di téere boo xamante ni ñun ndaw ñi ak ñi nga xamante ni xëy na ñi ngi doon déggee ni ñu nettalee tukki géej gi ci loo xamante ni wérul bu ñu demee ci téere bi dina leen gindi te dinañ gën a xam Serigne Touba fa mu doore ba dem Gabon téere bi nag mi ngi génnoon le 3 août 2024 képp ku ko yittewoo rek mën nga maa woo ci 76 169 45 09 76 169 45 09 ngeen def ko seen série cëb màggal ngir boo leen demee ba dallu ngeen xool téere bi di ngeen gën a xam lan moo waraloon ku tedd ki dem Gabon ak la fa xewoon yépp ba ni mu ñibbisee. kon téere baa ngi nii ngeen xaar ma ci deuxième partie bi ma ñëw ak yéen ci lan moo sabab tukki bi laata sëñ bi dem Gabon tuuma yéen ko doon teg ba loolu moo waral ñu yóbbu ko Gabon. ngeen abonné aimé partagé mu yaatu fépp bu leen fàtte tamit abonné sama YouTube Doss foofu tamit di ngeen fa am vidéo yi jaa ngeen jëf.